المكة مكة وضام عبد الله عدناني لا الكون كون به تدل كل إنسان Rodríguez di wax alhamdulilah si njiital alaaji ñu ko laal ak Ibrahima ak Mouhamadou Mourtada jërë ngeen jëf yéen a ngi ko programme bi bu bëree dara des bi ak Facebook ak TikTok ku ku ko bëgg a seetaan ak foofu kon jërë ngeen jëf ñu wax ne yàlla toog ba nekk télévision boo xam ne. fu waay nekk ci biir réew mi bitim réew léegi toog sa gàmmu daal ba ñu la ko en direct nga toog sa digg saal ba nga seetaan loolu yàlla mën na ko doole loolu yàlla la ko yàlla ko yaay di Mustafa barke alquran ba tey ci yàlla أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الخالق ما يشاء ويختار ما كان بالخير والحمد لله الذي أوجد أوجد كل الوجود له الملك وله الكمال وله كل المحامد والثنائي كما يليق بجلال عظمة سلطانه القديم ثم صلاة الله وسلامه على تلك ذاتية الأنوارية المحمدية الأحمدية أبا القاسم سيدنا محمد عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحالقة بمركز الفهوم والمعاني وعلى آله وأصحابه الأنجم الذين خلده التاريخ بذكرهم ورضي الله عن ممد كل عارف صمداني شيخ المشارق أحمد بن محمد التيجاني رضي الله عنه وجزى الله عن والد العبد في البر فريد عصره وقطب زمانه ووارث الأسرار والمجاهد الأكبر والعابد المخلص والعامل المتقن والعالم العلامة سيدي ومولاي سيدي هذه رضي الله عنه والله والله أسأله أن يزيده بركة ونورا وفضلا وتخصيصا ودرجة ورفعة وفضيلة ومددا وتكريما وتمجيدا وتشريفا ومغفرة وعفوا ورحمة ورضوانا مصداقا لقول الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر أما بعد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعلينا السلام أيها الجبر الكريم قد يخيف قد يخيف هذا الوقف لي ويعجز قلمي عن وصف ما في ضميري وقد تميل الحروف والكلمات من حمل الشكر والتقدير والامتنان على أكتاف المعاني البديهية والبيان لقد كنتم مصباحا لكل بلدة وقمرا لكل ليل وسراجا لكل سالك ومركبا لكل غارق نهنئكم أيها المشايخ السلام عليك أيها الخليفة السيد الشيخ مولانا السيد الحاج محمد الحبيب أنعم الله ظله وعافاه وعلى جميع الأسرة العريقة الكريمة المباركة أسرة مولاي الشيخ الحاج سرندورة رضي الله عنه إنكم رموز الهمة العالية إنكم رموز الهمة العالية والفلاح والصلاح ها أنتم دليل البشرية إلى تحويم الحرية وسبل السلام ومشارف الوعي والرشاد لولاكم لما كان لهذه الحضرة رجال يقومون بواجب نحوها أدام الله ظلكم وأبقاكم فوق رؤوسنا لكل قدوة ولكل قدرة حسب قدره يا عم يا عم أهلتنا ولكن الرحلة كالرسالة لكل امرئ حي عاقل أتذكر أتذكر عن والد كان حنونا كان صبورا شكورا عالما عابدا أعني به المنصور يا عم رحلت ولكن روحك باقيه ولكن روحك باقية في كل زاوية من زوايا حياتنا لن ننسى لن ننسى جوح صوتك يا منصور عند طلوع الفجر فانتبهت كل غافل ونائم بصلاة خير من الأم ارتبطت ارتبطت جسمك بالمسجد حتى صرت جزءا منها نعم نعم يا عم رحلت فكانت لدموعي تشاتت هذه الأيام تمضي هذه الأيام تمضي بنا دون الاستئسال وها هو القدر يأخذ منا من نحب دون إنذار كأنها كأنها لمحة حاضرة بين قبضة عين وانتباهاتها نفتقد من كانوا يشكلون لنا الدنيا بما فيها نعم نعم يا عم رحلت ولكنك تارك خلفك إرثا من الحب والعدال والحنان وذكرياتك لا يمكن للزمان أن يمحوها ومع السنوات التي كان معنا كان وقت صديقا لنا والوقت أصبح عدوا لنا حان الوقت حان الوقت الفراق وذكر خالدة والله ذكرك يا منصور خالدة رحمة الله عليك ورضوانه وعلى جميع الأسرة المفتقد أيها الأحبة أتساءل أتساءل عن حال دنيانا هل لها حل؟ نعم لها حل وحيد وما أدراك ما هي إن أرجو إلى تربيتي من رباه مولاه فأحسن تربيته وجعله قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر سيدي رسول الله سيدي رسول الله فأنت الهادي فأنت النبي الهادي الذي رسم لنا خريطة الطريق ووضعت منهاج الأكمل للحياة البشرية الإنسانية لتكون حياة مثلى ينسجم فيها الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع غيره حبيبي يا طبيب الأرواح العليلة والأفئدة السقيمة كيف تظلم أناس يستلهمون حروفك ويمشون على خداك ويشربون من معين من مالك المعين اسقاطا لقول الشاعر القاضي علي بن عمر ساخو يا مسلم يا ramu يا قم يا yaa يا ko يا يا يا yaay tal yaay لنعلم كل ظمآن إن صلاحية البشرية كانت بطاعة رسول رسول الله قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا يا يا سيد الثقلين فعظمتك كانت قوة إيمانية خارقة نابغة من ذاتك وإيمانك برسالتك المقدسة أسألكم بالله أيها الجمع المبارك وأي عظمة وأي منزلة أعظم قدرا من أن يعرج الإنسان من سدرة المنتهى إلى مله الأعلى ثم يرجع إلى منطاق مكة يأكل الطعام مع الفقراء ويمشي في الأسواق يجالس أهل الصفة في سامية في سامية مسجد من طين Thank you very much دائرة المشاهدين والمجتهدات سيد محمد المختار جوب سيد محمد البشير الشيخ محمد الفاضل بن عثمان الشريف Sanbo Aida and your entire group for this wonderful job. Thank you very much. Thank you very much, Dairu Zakino Zakirat and all Dairas. Thank you very much from your leaders to the last members. Thank you for your part and your hard work Thank you for your dedication. We are truly appreciate your job. Thank you. We are an amazing job. Thank you so much for hosting such wonderful event. Thank you for making us feel welcome and comfortable. Your event was absolutely perfect. Thank you for your opening your homes and your hearts to us and all the peoples, thank you for everything. We appreciate all effort you put in hosting such memorable gathering. Thank you so much, you guys. Keep it up. God bless you. So ko defee mbokk yi ñu ngi sant borom subhanahu wa taala He julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mboolem ku fi teew benn risaala bu ndaw lañ bëgg jàllale nga xam ne lenn si mbokk yi ñoo koy sàkk si ñun. gannaaw bi nga xam ne jàng nañ waqaala bii nga xam moom la ñu sas sant ñu ko buy benn wan minute ñu jël benn message boo xam ne danañ ko jox ñu ñu yóbbuloo liñ tànn tey bindoon ko moo nekk tarbiya bi nga xam ne moom la ñu Muhammad woon tarbiya ay saaba tarbiya leen woon defar leen leen ba ñu Muhammad bu toogaan ak ñoom di wax daf daa ni ay yoo xam ne ñoo dal seen bopp yi kenn si ñoom du sañ yi ngir xool na ci nga xam moom la joxal yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam jamono bi ne ñëpp ngay laaj bu nekk ngay jàpp yàqute gi nga xam ne moom la société bi yàqu yàqute société bi ne benn point képp moo ko war mooy yaratuñ jàngaleetuñ si ñun sëriñ si laa koy commencé nag ñun bu dee sëriñ si nii amul kenn ku si fas yéen sampu daara kon nampale leen yàlla nampale leen yoon ci yàlla Muhammad gëm loo leen seen way juri bëgg loo ko fonk leen ñu néew si sëriñ si ñoo ko ñoo ñoo ñoo am alis beneen bi dafay dellu si way juri way juri ku si jur sa doom mu am juróomi at wala juróom benn mara ko dara nga ne ko coow benn ne xaaral ma yóbbu ko daara ñëw jël sax si bi yëpp teg ko sëriñ sëriñ bi xaalis moom xam ne juróomi at wala juróom benn di faj di dundal di kootu di jàngal di yar ba mu am fukki at ak ñeent wala juróom xam ne tool bi ci jaay son bàyyi ji def stratégie kool sëriñ nu ko ah, man de sama am na ndaw mi ren dama bëggoon mu julli si xam naa bu julli si dootu ñëw Dakar la jëm jaay son loolu nag ak xor la boo xam ne wéy jur ñu koo def sëriñ daara way jur yi doon sonn juróom benni at juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñett fukk ak ñeent fukk ak juróom fukki at sëriñ daara di jiir bi di defar amaa nga sa defar gaa googu yu bëri bi war leen a jàngal xam-xam war leen a tarbiya defar seen jukku ba nga xam ne fuñ defati ko coppee nana noori Dakar ngir saafo maalu bu nga jëlal yàlla nattu la mu dem Dakar wala Serekunda wala Congo ñaari fan ñetti fan ñu commencé toog si garab page yi ndongo yi commencé tuxtaay commencé naan sàngal commencé sàcc ñu naa moom kat bu gën a mokkal alquran dëgg la mokkal na alquran waaye jukóom ju mokko bu doon jukko ju mokku nag kenn mëntu defar borom réew yi li ñuy jàmbat yëpp fi yàqute yàqute société bi yëpp léegi moo ko jukku yu jukku bu yàqoo si société kenn mënut a dox société jukku bu yàqoo si réew réew ma kenn mënu ko tax président yi dinañ jéem a sonn du sotti député yi danañ wax ba sonn du sotti sëriñ si danañ jàngal ba sonn du sotti kon yéen mooy juri jàngaloon nañ seen doomi alquran te ngeen wóolu yàlla si seen njaboot xam ne wërsëg yi nekkul si seen loxoy doom ñaata dina yàlla xañ doom te jot dénk leen tàggat ñaata nit am ay doom te seen doom yi bàyyee leen seen doomi sëriñ daara yi ñu jàngal leen yar leen jàngal leen liggéey tàggal leen wallaahi la wallaahi la abim daa wax nañu xol bañ fee génn sëriñ si faral ci ñoom ñooñu fuñ mëntu def ay biddu leen fay doon ay roy waay lañ fa doon ñii ñooy lamba an motivé ñii ñooy jiite jàkkee ñii ñoo amee daara yi sa koñ bu sëriñ daara pare ci yow foo dem dafa fa nga nekk bu sëriñ daara pare ci yow foo dem yàq fa nga nekk وبهذا القدر أكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jërëjëf jam na man na yal na yàlla fay la yal na yàlla dimbali la yal na yàlla dëgëral la yaa say ngoolee mag ak say rak ndax adra bi ne rek lay demee kenn dootul wax ne tabaarakallahu adra Cheikh Sida Sida rek am am dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin jéggeetuñ dara te moo ko bu di yéen ci yàlla Muhammad nag lañ nekk bu di gaaw waaye nag la moomoon sëñ ñëpp dafa leer oustaz daf doon ko noos waa yi loo mën a sëf sëfa jéew lu ma coono nag waaye njëriñ nag laay sàkku am njëriñ loo mën a xeeb xebal ndox laa ngi nii man sën diw lu ma jox de waaye diw ngay sàkk waaye wallaay xam nga ñun alhamdulilah rabbil alamin kon su ma defee maa ngi sàkk ci sant bi yëpp balaa mu sant yëkkati ñu ne benn Fatick salaatu saati yi fukki qul wallahu ahad ak benn xam yaa ko bàyyi Mahmoud Mansour wax bu ko tey koo xay diw say xam dara taw waaye xam na nii rek ku mu na rek tabaarakallaahu daal di ñëw kon nag nañ ko dafa xadiya ndax lii rek lañ ko desal ci xam na mooy ñaanal ko yàlla yokku leeram tax ñu si waxtaan lépp dañ ko jàng benn faati ak salaatu faati yi ku loolu laaw aat ak benn comme kaa jël si moom ci bon suuf mandat bi ñu ko yónnee nii yàlla ko fekk tey ci baabilam samatul yéen naa ne ci kawam bu bi baa ngi la yaatu ko ma leeral ko dëkk ci barsax si yowula ci yaani barsax yu ne ci yàlla Mahamad waaye barsax moom laa si ci daay si bëri muy naa ne ci biir kaw sari yàlla mën na xam nga mooy dem jamono na moom moo xam ne tàmbali kon yàlla ñu الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضي الله عن صاحب القرنية والكرمية أبي العباس سيد أحمد الزيزاني الشريف الفاطمي ورضي الله عن جميع الوسائل التي بيننا وبينه تريد الناس بعده أبدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci ndigalal sëriñ bi ñu ngi leen di kenn ku nekk ci dara jaam naam toll ñu ko cay fekk dafa màggal di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di ko siyaare ne ko dokkeel ci guddi gu tedd gii nga xam ne mooy guddi sagar fi sallallahu alayhi wa ngeen tànn pàkk bii de pàkk Mawlana Seydi El Hadji Serigne Touré muy radiyallahu anhu muy daaw ridwaan teew góor jigéen mag ndaw ci digalal xalifa Seydi Haaj Mamadul Habib jaar ci rakam imaamul akmal Seydi Haaj Mahamadul Amin jaar ci Seydina Usmaan Si Noreyni jaar ci Seydi Ahmad Tijaani yëpp su ma laamee maa ngi leen wax yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi nee na mu ngi leen di ndokkeel mu ngi naan tatagal mu ngi naan wax bismillah yi ci daaru baax fii ngeen doon waajal daaw ba ngeen fi jóge koo ba gàmmu ci suba ngeen xëy de waajaat pour ñëwaat pour gàmm waajaay bu démb di dugal ci démb ba gàmm daaw ba pare ngeen ko seet loolu nag cofet moo koy waral bu ngeen fi jógee du ngeen fi jóg jëmm yee dem waaye xool yaa fi loolu nag mooy bëgg waaye ñeen yéen di góor gi waxoon ne gàmmu gi nekk gàmmu daal di fii ci buntu néegam rek defoon tànn Seydi Hadj Mamadou Fadil radiyallahu taala te gàmmu ba fa def ko sëñ bi génn sol mantoon bu ñuul boobu noonu wéetoo ko toog jublu fekk janoom taalibe yi lépp a ngi doy koon ñoom waaw waaw jingil ripp fu ne nit doy ko ko ñëw ba mu ñëwee mu ne leen waaw waaw faa foogoon ne de ba ma nee ci seen biit jege leen ca biir waaro li ngeen doon def ngeen la ko def faa foogoon ne jege la ma ba leen ma ñëw ci àll ba waxtu bi de ngeen di ci fekk ma nekk yi fi mu doon jege bëgg waaye ma yëgal ne bëgg moo ne njëriñ ci nit ak yàlla kon bëgg ngeen alaaji sëriñ yàlla ngeen jëriñu waaw te du ngeen mën a ñàkk a jëriñ foofu ngeen jëriñu waaw kon nag ñu ngi leen di ndokkeel di jaarale bi ñu fi daan jaar rek ndax wax muy masaara toll fii loolu si daaj Maodo Fall moo ko tàmbali woon buñ tolloo fii mu jox micro bi sëñ Cheikh Tidiane Haydara naka yaay doon yëlati bu bind jotaay bi ci sa barke maam sëñ Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bu daan ñëw fii moom sëñ Fapal Haydara ñooy ànd doomam la ak ay rakam tey nag yàlla yóbbu na ko mu def rafiqul aala doomam bi nga xam ne di ñëw wuutu na ko ci place bi te ko del xaar yi yëpp xam ngeen su ma ba téye ko bi rek moom laa jox ubbi kon moom laa bëgg a mu ubbi leen ñu ubbi leen ñu ko ci gàmmo ni ko daan defee waaye ma jéggalu rek nag mbooloo di leen wax ne pour yi ma dégg nii gan la fi gan moo gën a waxuma ko bismillah yëngatu lu ma dégg ci buntu taat bii loolu gan la fi gan na nag moo ko ko gis bilaay bu fi delloo amat taalibe nag ndigal rek laay wi xam nga dafa nekk laay tekki moo fay yóbbu jaar waaye boo amul tekki boo demee dara ko dund kon maa ngi dégg taalibe yëpp nañ xam xaw ci ndigal topp ci ndigal dem ndax ndigal mooy tax nga jëriñ ku am ci ndigal ak ci dugal te dugal na fu la jëmee kenn xam ko kon maa ngi dégg ñëpp Seydi Mamadou Bachir bi raam dañ dem yi na saam te tànt ba coow yi bëri lool jox ma bam fii jotali ma bam fii coow na kuru mu ne ah yéen ne yéen ne caa na da na may waa daal yi ñu organiser leen benn waxtu la ñu rek leen seetaan waaye tagg woowu buñ ko ñàkk waay tagg fii kenn xaw fii wuyu ci biir tànn bi damay wax ne tànn daal maam da ngay solo bu la neex ba dugg ci tànn bi sa yére du forage nga gàmm ba pare génnaat ñii bi sa fett sa yére du forage loolu nag kàccoo bi ci xam wuyu bi ci xam ko defee nag maa ngi leen di dégg ñi nga xam ne ñoo am organisation bi muy Sadou Abdi ak Sine Mouhamadou Fadi Sine Mouhamadou Bachir ak ñeneen ñi jàppale ñëpp ngeen tënku ci règlement yi nga xam ne moom lañ tëral règlement bi tëral ne lii mooy dugg ci tànn bi toujours nit ñi bi daal di la organiser pour bañ mu yàq kon nag règlement bi tëral man su ma ñëw ku ma xam ne damaa wax ne bu jëlee ci buntu daan la ba ñenn ñi la ba lu loo wax mu ñëw fi ñii man maa leen maa leen teg fii ci organiser daan bi te la ba wàcc mu sa bayee tàbbi bi ko teg seen loxo man ko ñoo xam ne alaaji sëriñ lañ bu ñu teralee kenn bu ñëwoon da nga def a seen baa leen liggéey loolu seen maa ko liggéey moo tax ma ne nag comme fi nga ne wéy ci ndigal ndigal laa soxla fii bëgg woon nit lu lépp lu xeeboo ñaari yar wala ñaari teggi déedéet te loolu ku ko xamal sa war nga koo denc ci guddi gi la bi salaatu wa salaam tey nga xam ne bisu tey bii rab yi nga xam ne ay jaaxal lañ ñi dëkk ci xarfu bi des fois dañ jëm ci penku bi dañ doog kii la ñuy jublu ñi nekk ci ndeyjoor di nekk wàllu cib xar càmmooy ne ndox yéen ñi yi nekk ci biir géej gi benn nekk génn nga dem ne moromam nekk bisoon tey bi la boobu jaam nag dañoo yàlla mu ko taggee ak ni mu ko ni mu kon bis boobu ku cay tam làmbool yar ak tey biir làmbool sopp yonent bi sallallahu alayhi wa bu ko defee laa doon message bu laa ko jox bu mënu muñ dara foog ma wax ko ma laaj ma la waaw bu ko defee nag loolu maa ngi leen ko dénk yéen ñëpp laa wax nag amul kenn ku ma mayati ndigal ngay dikk ci tànn fii ñi nga xam ne ñoo am organisation bi nee na nii la ñooy defee nga teg ci baat boobu moo mat waaw bu ko defee nag ñëpp nañu ci ndigal saytaane bu ko may borom loolu mu dugg ci kër gi bu ko may borom loolu te fu mu xaj rek daal lu dul dara ñoom fi ne ñaata waxtu mën a siw lii waaw toogal fii toogal foofu rek dugal fii dugal foofu rek mu jeex bu ko defee foofu mën a toll boo gisee ñu def micro yi fu ne ñu defoon micro fu waay toll dana dégg dana dégg wax te kuy taale bi war naa leen ci digal sa sëriñ bu ne te toog ci militant ba boo toog ci militant ba dana dégg kenn ku ne sa sëriñ bu ne toogal ci militant militant ba dafa toog man bu may maam man dafa toog ci militant ba fa laay lam suuf te mu war a bokk suuf sax kon nag bu ko defee maa ngi dégg ñëpp yar ak teg loolu daal laay seen déggaane nañ xam yar nañ xam teg yi kër gi kër ak yarate gi la kër ak doomi nijaay lañ doomu baay amu fi tàccewaat ko waral wax leen ni ma bëggee loolu rek laa soxla bu إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد من فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق العاصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duñ guddal ndax guddi na ba noppi te namoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ràppoon suñ diggante yonent bi yaakaar nañ kii yonent bi dajee fekk moom tey dikk nañ ak loolu pour yeesal ko su ko defee kon duñ guddal dañuy jottali kàddu yi daan jottali rek mu bàyyee ko xam daan bàyyee ko jëm si si ñoom daan jëm si njabootu moo naan Cheikh Tidiane yi ñëpp ñëw ne ci ndigal yi alxalifa sëriñ Saadu Abi ak mu yebal ñu moom mu ànd ak lenn si njaboot gi dem nañ leen salaam lu gën a accès si njaboot gi man ma ànd ñoom ñëw fii ci xadara suuf am Mawlaana Cheikh Alxaaji Seydi radiyallaahu anhu ngir lan ñoom màggal si jëm maam sallallahu alayhi wa sallam te bi waxoon mu ne yàlla moom mu ngi fu ne foo ko foo moom fàtte nekkal dafa waaye foo ko foogoon yàlla moom mun ko wax waaye nekkalu la barab yi bëri nañ nag waaye ñu yaakaar nañ ci yàlla yaakaar ci Muhammad kon ñu ngi rafet ne buñ fi jóg mukk te guur ne saafante nañ ko maam sallallahu alayhi wa sallam kàddu yi dikkee nag kàddu nuyu la rek ak ndokkeel ñu ñëw nag ci diggante suñu kilifa ànd ak njaboot gi waaye ànd ak suñu kilifa dama daan ñëw su ma daan ñëw nga xam ne maa leen yilif waaye tey alhamdulilah yi ñëw naa ànd ak ñi ma daan yilif comme ma daan ànd ak ne maa ngi ànd muy koo ne rajulun jamaa bayna diini wa dawla honorable député Chérif Mouhamed Ahmed Tidiane maa ngi ànd ak moom ànd ak njaboot bi yëpp ci ndigal kilifa bi mu jox ñu kàddu yu ñu daa jox ñu kàddu ñëw rek ak ndokkeel ak ziyaara jëmale ko ci wér-gu-yaram sëriñ yi tedd yi fi nekk muy njabootu Mawlana Cheikh Mahi Sëriñ waaye jëmale ko ci bokki taalibe yi waaye jëmale ko ngi nuyu al Sëriñ di ko ndokkeel di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla fanam gudd naa la ñuy yegg sa bëgg yegg comme di nuyu rakkam الإمام الأكبر سيدي ومولاي الشيخ محمد الأمين ñu ngi koy doxal di ko ziyaare suñu fudd maam bi di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér sagi kër gi la ku ay magam wóolu la ku ay rakkam wóolu la di jiital ko muy doxal ci kanami ay magam loolu nag yaakaar la yaakaar boobu yàlla bi ko yàlla yàlla yàlla dëgëral la tuulee may la wér nga yàgg nga jiite usratu Mawlana Cheikh Xaalis yëpp di nuyu ba tey sama kër Cheikh Seydou du Nooree ni borom xol bu yaatu bi borom xol bu rafet bi ki nga xam ne yéen na jàmm yëpp jàmm kon ñu ngi rafet jotoon ne dundal yëpp jàmm lay nekk yàlla yàlla def loolu ñu ngi nuyu suñu wéyjur suñu sëriñ waaye suñu xarit suñu soppe suñu séddoo ak sëriñ yi wa Mawlaaya Cheikh Seydi Ali Bekri ibnu Cheikh Al Hadj mu dëgg dëgg dëgg ànd ak wér waaye loolu lépp ànd ak tamit maqaama Mawlana Cheikh Alhaji Serigne yàlla jox ko ko su ko joxee mu yàgg ci lool nag di nuyu suñu wéydu Cheikh al Suyuuti Abil Abbas Seydi wa Mawlana Cheikh Seydi Ahmed Tijaani ibnu Cheikh Alhaji Serigne nga xam ne yitteem xarakaatam yëpp mooy bu loolu ñu ci génn ci réer xam suñu xamee nag fa tabaarakallaahu àdduna dana yomb jafe-jafe dana dàq yitteem yëpp mooy mu ngay jàngale mu ngay xam ne Touré ñu ngi lay ñaanal wér koo jàngale yàlla yàlla jox la ko comme boo toogee jàngale yàlla yàlla jox la ko yàlla dimbale la ba képp koo jàngal mu xam gannaaw bu mu xamee mu jub taragal yàlla ba tey nag sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suñu borom dëkk suñu mag suñu kilifa alxaaji Moodu ibnu Cheikh Ahmadou Bachir al Khalifa ak rakk bi tural di nuyu doomi Cheikh alxaaji Serigne yu jigéen ñi suñu bàjjen yi dalee ko ci Seyda Fatmatu Zahra bépp Cheikh alxaaji Serigne ba si Seyda Rokhaya ñoom ñëpp ñu ngi leen di wax sa wàccuwaay bi di leen ziare ak seen njaboot di am kontaan ak mbégte bu baax si njaboot Mawlana Cheikh Xaaji Sëriñ ni ngeen def waa kër yonent bi lu Cheikh Xaaji man la war a baax man moo xam sëriñ bi dafa waxoon ne tuure mbooloo mi dee yaatu naa waaye ku mel ni yow dee yombul te feneen fu suma mbooloo mi ku mel ni yow yombul waaye itam ngeen di sëriñ bi ni ngay wax ne dëgg-dëgg njaboot ak sëriñ bi ni ngeen mel si njaboot yonent bi dëgg-dëgg ñu ngi lay ñaan yàlla nag seetlu rek yonent bi tey ñaan nga tey yaa ngi yàlla boo ñëwee indi xel yi ak xol yëpp seen kaw ànd ak njëriñ nag barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bëggee su ànd ak njëriñ boobu moom boobu bëggee bëggee amul njëriñ kon nag yaa ngi yàlla loolu la tàggat xol yi loolu la tàggat xel yi ñu jublu leen te ànd ak njëriñ loolu yàlla mën ko àll def ñu ngi ziare ñun ñëpp ñu ngi baalu xàq ñu ngi lay baal xàq ñu ngi lay ñaanal yàlla ñëpp gàmmu gi yàlla mu doon suñu jëkkëri gàmmu yàlla yàgg di fekkee di gàmmu te yàlla di ko gërëm képp koo xam ne roon nga see kàtt bii soxla boo ko ronoon fekk fa yow lislaam du mel bokk du yàqu yàlla yàlla fekk képp ku roon tànt bi ak feebar yàlla yàlla si faw képp ku roon ak jaaxle yàlla yàlla yàlla wekk yàlla mën na ko yàlla yàlla def barke yoon nag si bi barke doomu Mawlana Cheikh Tidiane yi barke jëw bi nag ba Mawlana Cheikh Xaali Sëriñ barke boobu bu moom ba Seydi wa Mawlaaya Cheikh Sidi Ahmed Tidiane farata ne allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim fatiha barke bi naati salaam bi fatiha di leen wax tamit mbokk suñ bàyyi si Maxtaar Touré ci naati ko laa jaamaan yóbbal teem yegg si na Cheikh Sidi ay yóbbi jox nañ ko ñu leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ajaale ci ñaan gi fatiha barke naati salaam bi fatiha mi nga xam ne moom nga àndat mu di sa kilifa ren yàlla dogal xiir ko ne ko demal gàmmu ji ci sa maam si dara gis mu ñëw taaral jotaay bi lool muy te Ahmed Aïdara foog naa ñu bëri xam nañ ko ci mbooloo mbooloo mi ndax liggéeykatu rajo la woon moo tax ñu bëri xam nañ ko daan na liggéey ci télévision bi waaye léegi nag garaar dafa yokk député la. maire la mooy maire bu Guédiawaye mooy député ba loolu la ñu koy ñaanal yàlla par boobu ko ci barke te yàlla sàmm ko ca defal ko ci lépp lu ci yéenewoon ba tax mu dugg ci yàlla ko ci yàlla defal ñaan kàddu yi ñaan yëpp yàlla gërëm ko ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam guddi tey gi mooy guddi yéen sa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne yàlla moo njëkk a gàmm ci moom. sant ñu ne nag gàmmu ci moom yàlla dafa wax ne yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi gàmmoo leen yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla gëm yonent bi gàmmoo leen ci yonent bi ah noonu laa ko nekkee yaa ayyuha alladina amanu kuy sa borom nee na gàmmoo leen wa salimoo te ngeen gën kontaan lool ci bindu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku wuyuwul nag yaa xam ku ku gàmmuwul ñun dañooy gàmm ku gàmmuwul ma ne ñun dañooy gàmm yonent boo xam ne yàlla tàgg na ko ci rek yonent fu ne yàlla tàgg na ko tàgg ta ta tàgg na ko jikko ji tàgg na laame bi na dënd bi tàgg na gannaaw bi na loxo yi na laame bi tàgg na xol bi na sax dundal ma xool kooku bu nit julliw ci moom jaa gàmmoo ci moom ci gàngaay gàmmoo dafa am télévision bu ñëwoon tey bu may laaj mu ne ñi nga xam ne kontoor yi fi gàmmoo léegi kilifa pour ñu wax ci ñoom pour delloo leen maanaam ñu jaruñ ko a leen a bàyyi ñu ndaw ñu wax ak ñoom waaye kilifa yi ñu wax ak ñoom ñooñu ñooñu duñ leen tontu ndax soo leen may leen bës te noo leen ko may maa lakk ñun daaw ñun dañuy gàmm. wala ñu ne. Isa Xawe. Isa ما ضل سائبكم وما قل وما يتبع لهؤلاء سبحانه سبحانه وتعالى مونكين تلالايكين منمويكين كي فيديو فيديو bu fekkee ba leer ba suuf yàlla dindi lu muy dindi mu ne maa dalla saahibukum waa ko wax xam nga dañ ko ne yaa ayyuhaa llazi nuzila alayhi dhikru innaka la majnun yow mi nga xam ne yaa wax ne yàlla wàcc jeewal Alxuraan toog nga yàlla génneel boppam ne déedéet wa maa saahibukum bi majnun Thank you. ndax waxu ci bànneex ak bakkanam lépp lu may wax ci ko bind subhanahu wa taala moo ko koy wax. am na ma ko sa biir lu ko leexe. benn jaam laa yebal ci moom jaam boo xam ne bu gënoon na muy jibril alayhi salaatu wa salaam wax jibril la ko koy ko. suñu biir la mooy koo xam ne mooy borom kattan mooy borom ndigal mooy ki na jox ndigal da a ak yonent la ko demal xool ma Muhammad dama daan jox courrier nga yëg ko tey nag dama ne demal xool ko ni mu wéy ma ne ci diggante ñuy ko wax alxuraan daa war a ne ay laaf la ko yàlla defal juróom-benn si biir bi ne laaf la am loolu xam ci góor gi bu dee pare gaawaayam toog na ci fu kan ba dal bët ba dal fa fu ba dal tànn ba dal rasul ne ko lu ñooy mu ne ko war waaye baa ngi nii mu dikk ka ci alxuraan ne ko kaay sanga bi ne fi war alquran bañ bañi dellu gannaaw na ko du ma war a lasi mu ne ko lu tax du war bu ma amee jafe-jafe yow ba ma laay jëlee jëf aljana ja nga nekkoon dama la fekk yaa ngi tiim sa lekk gi nangu laa lekk ma laaj la lu la teree lekk nga ne da nga déggoon turu Muhammad su ñu ne xam na ñaar a ngi nii keroog nga dégg turam nga tey Iblis Iblis naa ko bokk na di lii agri min al masjid al arabi ila al masjid al aqsa salaale wa salaam naa ko te tempom bu rafet boobu ñëw yëgit loxo bi teg ko ci ceeb ma ne ko garanti naa ëllëgee dana nekk àjjana. rasul bi masjidil haram ila masjidil aqsa. ci gàttal mu nangu rasul war ñu départ. alladi barakna hawlo. départ nañ Makka jaar fi ñuy jaar ba ak si Baytul Maqdis. minal masjidil haram ila masjidil aqsa. fekk fa téeméeri junne yonent yi ak ñaar fukki junne yonent yi ak ñeent ñëpp mu jiite leen ñaar rakk yoo xam ne kaamil Alxuraan la ci jàng. alladi barakna hawlo. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى na jege la kay ñu jege nga ba mel ni xala ak kocc ga kon sës na ci moom rek ñu doon xewee nag lan la ci topp mu ne faa waa ilaa abdi yàlla yootal ko la ko yootal loo xam ne kenn bokku ci yoonalaat ko loo xam ne moom ñeent ña ko bokk yoonalaat ko loo xam ne moom ñëpp a ko bokk. sëriñ bi dafa am message bu mu bëgg a joxe waaye maa ngi leen wax ne tey daal da ko li bu biir xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw màggal ku nekk ci màggal ko alaaji Mamadou Fati doon jëlaat talaal ne la fii xurbatun wa xarbatun li rabbina wa madadun wa xabatun xalsaaw boo xam ne boo màggal nga guddi gii tey na la wóor ne amee nga ci jaamu yàlla nga nangu amee nga ci tege sa borom amee nga ci tëpp ci leer yàlla tëpp ci leer yonent bi tëpp ci leer si la amee nga ci jëf loo xam ne yàlla fa ko sellate alaani laay minul xaalis هو سر سر هاي سر وجودي jigéen ci loolu nag bu ñu ko gis ci ko ñu noonu mu gën di ne ko ñu mën rek la woon ñëw dikk dugg ci kon moom présenté woon ne ndekku la présenté diine ci ko la defee ba baax jikko ñu ne boo ko defee rek diine loolu daal diine ji dafaa jëfante jikko ji dafaa jëfante balaa nga am diine ba nga am jikko ju baax فاق mboolem dëkk yi la ñu ko jiitu woon ci lu mu leen koy mu ne xanaa fii xalqi moo leen gën a rafet ñëpp sallallahu alayhi wa sallam yonent bi taara ko bu ko yàlla muuriwu doon xëy ba kon kenn du ko la xool boo déggee ñu naan lii suba defee rafet kenn du ko xool ba ña ko doon xool dàgg seen loxo naan ma haaza basharun in haaza illaa malakun kariimun moom amul lay mu ci yàlla mu waaye rasul sallallahu alayhi wa sallam taar taar bu nekk téeméer benn bi la jox li suba quatre-vingt-dix moom yëpp Seydina moom sallallahu alayhi wa sallam soo koy xool lu la niru leen bu la niroo li fi nekk rek niru la moo tax jëmm joo xam ne day leer ba rusloo na làpp Aïcha ba ngay si dégg xam naa su ma topp ñii nii la sëriñ bi ñu ko wax ma jéglu ay mbir te fu nekk nii cinq heures donc cinq te sëriñ dafa am kàddu yoo xam ne moom la bëgg a jot li mbooloo mi defee nag di leen wax ne kooku gàmmu la ñuy moom moo ma taxaw fi te waxuma ci si yu tuuti doon rek kon juróomi nit laay ma barkeelu ko ci ñaan yàlla yéen a ko teewee yàlla gërëm yal na yàlla gërëm képp koo xam ne dagg nga paas jóg jëm si daal di wax ñu lay sant di la gërëm ne def nga sa participation ci gàmmu gi ñu ngi lay gërëm koo xam ne xam nga ci yéene bu rafet lay gërëm koo xam ne. bëggoon ngaa dikk te mën naa dikk itam ñu ngi lay gërëm dana ñaanal yàlla nag bu déwénee yàlla nga bëgg mën a dikk bu defoon leen benn bu déwénee yàlla nga mën a def fukk loolu mën na neex nekk xasakaay bi bu bëggoon a def te mën naa def day ñàkk yàlla la yàlla xool yàlla ngeen xool yàlla ngeen xool yàlla ngeen am xaalis yàlla ngeen am xaalis yàlla ngeen am xaalis yàlla ngeen am xaalis yàlla yàlla génne ci xeeti ndaw yi dugg ci mbokk yi dem bitim réew loolu mas la yàlla kaa génne ci xeeti ndax da dugg ci gaal de dem de dee dëgg dëgg neex yàlla xam day duune bitim réew rek la kon nag nañ ñaan yàlla mu moomalal man de léegi ku diggee dama ma doom yi tukki daal ma ko dee dama ñaanal ma tekki man laa tekki daal dañu àgg kon yàlla ngeen tekki ndaw ñi yàlla ngeen tekki wala amiin yàlla ngeen tekki bu ngeen tekkee xaalis nag boole naa bu ngeen nekk fekk daje ko bu ngeen dem daje xaalis yàlla ngeen teg ma di leen di salaatu wa salaam maa ngi wax buntu xaaru wala laqi tuwaa ba mu turam ba ku daan waan bi xëy na salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu baki Seydina Ousmane Sy Noureyni Seydi Abou Bikrine Cheikh Ahmed Tidiane ñoom ñëpp doxe nañ ndigal ci gàmmu boobu nga xam ne miinoon nañ di ko fi yébaane mooy gàmmu bi ñuy def ca sama kër ca Serekunda te Neema da ko yëgal jullit yi yëpp képp ku fi teew fu mbokk mën a bàyyi ko ci Saalum fii daf di occasion boo xam ne buñ ko fi yëgee rek daanaka ñëpp danañ ko yëg te xaar ba mu jàll su soog a dugg ci réew mi ba nga koy yëgle ku ne xam na ne du yomb sëriñ yëpp joxe nañ ci ndigal ne weeru décembre ñaar fukki fan yi ak benn vingt et un décembre mooy twenty one wala nga ne 21 ci décembre incha allah mooy gàmmu boobu ca Serekunda saakirina wa saakirat di ko taxawee waaye suñu sang yi di ñëw di ko teewee si ah maanaam taxawee lépp lu aju ci wàllu jotaay ba ñu ko yëgal jullit yëpp থামিয়ে alaaj si boo ñu nekk ne balaa mooy doon mu daa maqaama yàlla teg na ko li muy aayaay maqaara ci ay nattu mu doog koy ñaari jiw yi nattu ak juróom-ñett fukki nattu ak juróom yàlla natt ko Sëriñ Tuubaa kenn ku nekk ruum génne ci dina atal ba dem si dëkk mu taxaw jiw yi ko ko mën a fay delloo si waat ko ci yëngu yi ngeen xam ne heure ba delloo ko. ok aarif la de moo ko wax. xaaral nabi maanaam rasul mi ngi xamante ne mooy daj dëpp gi sax damaa amoon ay napp ci daaw ah kay waaw waqatihu li buluugil jaahi qaa'ila faqara wa qaala lahu ataaka min ufuqi wala maam ba si ah Jibril nag naka ci biir daa atala xuntu mi taal fu yi kenn nekku ba mu ànd ak sunna ñoo xamante ne kenn mënuloo ko naa ko jàngal rasul naa ko ataaka min ufuqi maa am na bi xaari yaa nii ay duur dana xam ne réseau boobu laa posi posi la woon ah réseau dana sax rek nag ma am abita yi waaye bi ñu xamee li ñu sotti daf ko gis ne abita réseau mel ni dafa am muy karay ba karay ba bu bëccëgee yi tàkk yi gis ne abita waaw réseau na koy jàng na ko cee def bi waaye bi xemoon ci état rek ñu jot ah ey wama réseau daan na am firnde daan na am jafe-jafe daan na dem a dem a dem a dem bee ne ngeen xaw rek jeexal dem yoon ndax rek ay jafe-jafe ay natt waaw waaw yalul jibaala muy nag raw yi gisati yi buus nañ ilal ardi wallahi nawaaruhu sura daan na dem a dem a dem bay bëgg rek war na daanu ci suuf non pour ngeen yoon waaye saa bu demee ba bëgg a mën a xool Jibril moo koy woo na ko wallaahi yéen fi am na e eh, imaamu daal di fi jëlal Malik ibnu Anas ana Malik ak na koy te ku xam xam ne ak imaamu Malik Eh, ni loolu bu am gis nga nii Madinatul Munawwara fa la juddu ci benn koñ ci Madinatul Munawwara bu ñuy wax si Moro Malick ci dëkkam yu bi boobu nga xam ne moom la waxoon ne dëkk la boo xamante ne dafay lekk lëkk yi ba benn dëkk la ko def dëkk boobu nga xamante ne gën a moom yonent bi foofu la doon dox ba yës soo gëlee nga yës mu tabax fa këram tabax fa jàkkaam bi mu jaaga bi yiibi ne noon na amul benn doomu aadama boo xamante ne dana génn wala mu nisir dem julli ji ci jàkka mu war ko lu mooy jàkka jooju ak jàkkay Makka jàkka ji ca Makka faa maa jàngee ci école yu bëree bëri école yi fuqaraaw sax ah, fuqaraaw sama yëpp ci seen ka leen jiite ci ñi ci jiite ñu ñëw leen doon imu imu et waaw sama yëpp Malick jàng na ci seen i école benn benn yi Malick jàng ci biir Madina et bëri nañ lool ndax Malick jàng na ci ñaari téeméeri sëriñ yoo xam ne ñoom ñëpp fekk nañ fi saaba ay tabi yi ne Malick jàng ci ñetti juróom benn téeméeri sëriñ yoo xam ne ñoom ñëpp tabi ay tabi yi ne kon borom xam-xam bu mag doxoon moom Imam Malick Malick Imam e, nekkoon de imaamu euh, Madina doon mufti nga xamante ne mooy euh, moom la ñuy laaj maa la koy nga koy jiite jàkkaay nit ñi waaye teewul amoon na natt rek moom imaamu Maalik maa ngi maa gis et borom xam-xam wax bu ko boolee ak buur rek euh, am na jafe-jafe Maalik dafa toog ci dara ñu toog am ñu ko laaj na ko imaam ñun de dafa am masala bu ngeen doon laaj mu ne leen bismillah mu ne koo xam ne dañ koo fase ci forcé dañ koo forcé mu fase jabaram ndax fase moomu dara tàbbi wala tàbbi mu ne leen laaj ñu ne ko koo xamante ne nii dafa giñ dañ ko forcé mu giñ ndax ngeen yoru dara tàbbi mu ne leen laaj ñu ne ko fase am ni mën a laa ah gaa yi jógee fa dem kalaame ko ak góor góor bi nga xamante moo nekk ci dëkk bi eh, doon Jaafar mu Suleymaan mi nga xam ne abi ma eh, abi Jaafar Mansour ci Iraq moom moo ko fi def kaa booba maa ngi ci ñoom ñu yónni délégation pour mu ñëw ci Mali te demee seeti ndax li ñuy wax dëgg la war a dund maa ngi jàngale ba ca kanam rek am ku yëkkati loxo ne ko imaam dañ lay laaj koo xam ne dañ ko forcé mu passé jabaram na passé ba dana tàbbi bi koo xam ne dañ ko forcé mu biñ ndax ngir ña tàbbi la war a tàbbi maa ngi leen laaj ah ñooñu delluwaat ci Cheikh Souleymane ne ko nag li ñu wax dee imaam yi dëkk bi ñii moo ko wax jàngale dafa dëkk bii bii nii mu boolee Imam Malik ak ay na doon war a ñëw Malik dafa toog rek ab biir rek defar eh, Souleymane ñoo ay ndax ay ndaw rek na ko ay teel sa jaagu bàyyi du jàngale Malik toog ab biir boo xamante ne jàngale toog rek ba nga xam ne ñu ñëw si Imam Malik yóbbu ko ci benn paas duur ko dix milliards ba la ko ko pour summi ko ba mu des ba mu des dërëm laayam ñu diir ko ko dix milliards ba la ko ko métti na da koy jël tegoo ci kaw mbaam da ko ci biir Medina ngir ne eh, li Malick wax maanaam bu ko kenn waxat delloo ñu gën ne ñoom ñooy ay buur toog ñu war war leen ne na nag maa ngi mën toog ñi fi toog di ay buur di leen duur lu wér ndax dañuy forcé nit ñi moo leen war a nag waaye lu firnde ci métti maa ngi leen ci kaw maa ngi lëwër naan man وما من ذلك فيه أن مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عبد فقال إمام الفوق لديه ndax maamam yooyu ah bi abi abi fekk yoo leen dalee rasul fekk yoo leen lu koy bala kon maa ngi xam ne cosaan la kay la nag moom fekk fi saa ba imaamu Maalik mu ngi juddu quatre-vingt-treize hijri te ku fi saaba de imaamu Maalik du taabi'in borom masaayu Abaa Ayyuub kenn rek moo ci nekk taabi'in moo doon Abu Hanifa waaye ñoom ñoom nag Maalik mooy seen njiit njiit ndax saafi yooyu ci Maalik la jàngee un saafi yooyu ko jàngal Abu Hanifa Maalik daan na ñëw ci Maalik dina xam si Maalik dafa biir jëlee jigéen naan yéen waa Iraq yéen seen xam-xam yi nangam ak nangam kon Maalik mooy imaamu borom Masalikul Jinaan waaye terewul de waaw am na suñu njëriñ ndax Maalik nga ngi ci kaw baam naan man arafani fa arafani wa man lam yarifni fa ana Maalik ibnu Anas ibnu Maalik ibnu Abi Haabib imaamu asiil madina wa ana aqul talaqu mukrihi laysa laysa bi shay wa ma ala mukrihi jiite la baax sax kon daaw moo nattu moo jafe-jafe ñoo ànd nañ ko bàyyi teel ñu maanaam ñaata rek fi mu ne dina mën a ci sa wàllu diina ci sa wàllu lislaam ah démb boo leen ko bàyyi teel ñu taam sa war bëgg nit ñi ñëpp a jàmm bëgg nit ñëpp ànd nekkoon nekk la nekk loolu lépp Cheikh Mamadou Fadi la ko sàddu woon ci man ma fa bi ma génnee ci mbooloo mi ma ne leen wallaahi ku daanaka ko am ku jafe-jafe am ndax am na boo xamante ni diggante la bokkoon génn diggante ba may demaat ko mu dama dégg woon naa place bi jaaba boo dem ñaanal ma fa yàlla diw sànga mu def yaa ci biir kër gi ndax bëggu ma demoon xalaat seen ji man de wax la ne fekk ko fa waaw euh, dem dama ci lay laataa lu mooy dama ne boole ma dajale leen kon lii baax na baax lool yàlla yàlla dimbale rafetal ñu suñu rafetal ñu suñu pas-pas rafetal ñu jaay seen wala lépp lu ñu yëngatu ci kaw si si yàlla ko waaye lépp loo xam ne yàlla gërëm ko yàlla ci saxal suñu jiyee ñu jamono yëngatu xam naa li ko ni ci na waaye foog ñu sànni ay kàddu rek doon ko barkeloo di wax mbooloom salaamu aleykum wa rahmatullahi ma ngoog am na loo xam ne bëgg naa ko wax nag sëriñ bi li ma doon wax am na ci kàddu ñu bëgg koy jox micro bi te fi ne xam na fii kooku julli waaye ñun ak Daaru Salaam genn lañ euh, daaw jéeg dañoo gàmmo ba nopp nekk siyaare ci àll bi si raw mu ne ma ana gàmmo ga ba neex na ma ne ko neex na mu ne ma bëri na nit ma ne ko waaw waaw bëri na nit mu ne ma at ah, ñun de fañ gàmmo ba 10 heures yonent yi dafay gàmm ba Niger Daaru Muxti nag ak Daaru Salaam genn lañ kon nag su a laase te tey yaa ngi fi waroon a mën a buumal tànt bi te tey nag liñ tool bi jotu ko ci ñoom ah waaye te sëñ bi doxee ndigal rek ñu gàmmoo ñu dem ba Niger li bëggoon naa ko am ñu gàmmoo ba Niger bu juulee rek kenn ku nekk toog fa nga toog waaw ma defee dama jox Mouhamadou Bachir mooy mu wutuma ci ma tànt bi ndax moom laa bëgg sax kii na taxaw tey bu taxaw fi waaye foofu ko dafa am kàddu yoo xamante ne mënu ma koo ñàkk a jotalee waaw loolu rek laa leen ko doon defal salaamaaleykum wa rahmatulah. min yoon yaa salaam téeméer yoo ko fukk ak benn ñu xëy jaara jàmmal jàmmal boole bi ñu Yusuf Demir Fukakbel Nihir Ibarat Tawajah Safa المرسلين وعلى الكافرين Selamat تنتظروا Selamat borom Selamat ngi Selamat yàlla ndokkeel ci bis bi gannaaw bu mu ay rakam gannaaw bu mu siyaare ay rakam yi siyaar boole ku teewoon bii nee na daf a jottali ay kàddu kàddu yoo xam ne kàddu yu cant la kàddu yu ngërmaande xat kàddu yoo xam ne dafa jógee ci xolam ngir xol boo xamante ni dafa sedd muy ci ay taalibe ci jëf yi nga ne moom la jëf ci guddi gii ñu passé ak lu jiitu nee na seen jëf lépp loo xamante ni bii war a la dara màgguwul ci nee na lépp sotti na si jàmm ci seen ak pas ak seen ak rasulullahi sallallahu alayhi wa ak seen ak bëgg Cheikh Tidiane ak ak bëgg Maolana Seydil Hadji Seck nee na noonu ñu ngi ci sant bu baax ci gërëm ñu góor ak jigéen mag ak ndaw lépp nag yàlla ànd ak gërëm ak suñu borom subhanahu wa taala nee na danañ leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu dooli leen jàmm dooli leen yokkute dooli leen teral seen xol yi seen seen muraan yi duy sotti lépp nag dajee gërëm ak suñu borom subhanahu wa taala dajee gërëm ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlana Seydina Seydina Hadji Sëriñ nee na li mu doole ci ay kàddu gannaaw kàddu santam nee na mooy loo xamante ni dafa ay boo taxawee fii ci ron baat da nga xam ne sa alal jooju santuñ ko waaye def leen ko fi nga xam ne foofu leen waxoon foofu leen koy def ndax lépp loo xam ne digal jaar na ci loxo yi nga xam ne ci loxo yooyu la war a jaar loxo yooyu dugal ko fi ko war a dugal te boole boobu sonn ci lool te mu ànd ak gërëmal yàlla ba mbir mii muy mbaar mii nga xam ne mu nekk xoolal sa digganteeg yàlla te nga mën koy def def ko ngir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam def ko ngir sàkku ngërmaande sa sëriñ Maolana Seydi El Hadji Sëriñ nee na soxla ngeen sa sa participation fii nee na keneen ba ko waxee ci baax képp ku mënoon a def ànd ak la nga def ànd ak la ngay defee te moom nga keneen bis boobu la nga mën boo xamante ni te mënoo woon ci nga dem ba nga delloo sa kër la nga mën ak la say mbokk mën ngeen boolante ko ginnaaw indi woon ko noonu ko def mooy ca baar ma nee na xaalis boobu lépp ku ci baar bi la dugg nee na loolu nag jëf ñooñu ñu jëfoon xaj nee na jëf gi nag daara bi ànd yi ànd leen ci gannaaw boo xam ne bii seen wajur yi ñoom it ànd yi xalaat ko dem waxtaan ci seen wajur ñu leen ko bi jottali yi nee na loolu mooy kàddu yi nee na soxla leen dimbal fii taalibe yi jaasaat bi mu taxaw defar tànk bi ñu ko bëggee nee na taalibe koy sas. mu bay sa suba bu góor jotee mu góobu boo nee na doomu aadama bu lebalee yàlla faaw mu seetlu fay faaw it yàlla dina la fay nee na ku lebal yàlla yàlla naa la fay de nee na bi ni mu bi bu ko defee te mooy ñu karu ko boo jëlalee basan boo tëddee boo boo bu la neexee toog nee na bu paree leneen loo xamante ni soxla war nañ ko ci wàllu liggéey ñu ñu ñu continuer ak liggéey rek mu dëppoo jamono ñu ñaan ci loolu taal waaye lii nag mooy karu ko loolu mooy soxla bi ne moom la dë man bëgg taal bi def ko te buñ ne taal bi yi sën yeeg ñëpp si kuy soppe ak xale képp koo xamante ni sa jomeel la ñu nee na ndax barab bi léeg-léeg waaye jox bi léeg-léeg waaye def fi alalam ngir bëgg yàlla kese moo tax mu def alalam waaye loolu ak mun naa am sax ay ndax ñi koy liggéey bi ñu koy liggéey borom réew na ci li borom ba seen xol seet ak képp koo xamante ni bëgg nga cee def sa ndimbal ñooñu bañ defee seen dimbal action la ci daan tamit te defoon nañ ko fi mu war a dugg mboolem boo xam ne nii defoon nga ci sa dërëm la nga def ñu ko bind ba bés bi ngi tey jii lépp loo xam ne nii def ko si xam nañ ko ñu ngi amee kaye bi amee kàttan kon yëpp ñooñu nag moom la bëgg a fekk na ñaan buñ ko defaatee nii yàlla na suñu borom gërëm comme ñoom gërëm yi woon ñu passé woon yëpp ñaan nag borom subhanahu wa taala maye ci wér maye ci warsak maye ci teraanga ba ñëpp di jàppale bu dara jafe lépp mu ànd ak bu set yàlla na lépp ànd ak ngërëmal yàlla nee na loolu nag gannaaw loolu bi nee na gannaaw loolu nee na ñu ñaanal leen sotti na lii mooy ko dajaloon màggal bi tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko ba rafet yàlla na ko suñu borom gërëm nee ñu leen di ñaanal di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may leen ngeen delluwaat si jàmm si seen i kër ñëwoon ngeen ñu ngi ñaanal yàlla ngeen delluwaat si jàmm te ànd ak gërëmal yàlla loolu yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal du jëlee ci bu beeku ci xol bu sedd ci yaram bu sedd jëlee ci gërëmal suñu borom subhanahu wa nga jëlee ci ngërëmal Seydina Cheikh na Tidiane jëlee ci ngërëmal Mawlana Seydina Aji Sëriñ nee na war waay yàlla sedd war waay yëpp yàlla sedd ba ñëpp mën a dellu fañ béye woon ci jàpp ne waayam ba te yaakaar barab bi moo xam ku jege moo xam ku tuuti la fépp boo xam ne waaye ma rek te yaakaar barab bi yàlla na ko ba yàlla fekk fu nekk defal ko lan bëgg bu dee koy tukki yàlla na ko yàlla defal jàmm jàppandal ko kay bi jàppandal ko léegi musal ko ci bépp seetaan bu nekkee ci xat-xat yàlla na yàlla xettali ko képp koo xam ne yaa ngi gën yi te yaakaar barab bi yàlla nga xàggal jàmm ànd ak ngërëmal yàlla dara jox ko soo bëgg a denc yaat mu yombal la ko nga mën a denc ànd ak xol bu sedd ànd ak ngërëmal yàlla ñi di yi ci barab bii te mënuñoo def yàlla yàlla doon leen jàmm yàlla muy yàgg yàlla muy yàgg rek yàlla muy béy woor yàlla muy murtal kii bi yàlla leen yàlla yàggal lool may leen gàttal bëri bu ñoo jaamu yàlla saga suñoo jaamu yàlla xewal boo xam ne dañ ko jaamu yàlla ànd ak li jaama yàlla yàlla may loolu ndaw ñi yàlla yàlla wutu leen yàlla yàlla barke leen yàlla buñ gàtt yàlla buñ beekoor yàlla buñ mën tan yàlla yàlla musal leen ci dàkk masin dàkk warwaay dàkk daara bay dàkk nekk buur dàkk lépp lu yàq yàlla yàlla nee na béykat yi yàlla yàlla xagal nawet bi yàlla barkeel ko dund lu sotti daan da kottu set yàlla mosoo ñu ci bépp jiyaar kàttan bi ñu ko liggéey wér bi ko liggéey salo su ko liggéey xéwal bi ko liggéey daa may ko liggéey yàlla yàlla may ko dafay si mu mu nekk muut ñu kii ñu bay it yàlla yàlla doole leen jàmm loolu leen ñu wan bu nuyu bu béy ba lépp luñ a def mu def ko jamono yal na yàlla may ko defee ay sago ñu ko defee yal na muy yàqule yal na muy murtal yal na yàlla di may bañ mën a jël si tànk yi ko suñu borom defal nee na jamono soppeeku na nag waaye yàlla bu ñuy jamono soppeeku lépp loo xam ne dëppoo ak yoon yal musal ñu si suñuy njaboot soppe yi ak xarit fépp fu waay ma nekk yaakaar maa ngi leen yàlla yàlla dafa ko jàpp nee na seen xol na yàlla seen xol sedd yéen nee na sëriñ amul dara dara taale la rek la taale la moo mooy lépp nee na nit ki day taale bi sëgër sëriñ bëgg day nangam mënuñ koo loolu dafa war a naqari taalibe waaye seen sëriñ sas la nga bàyyi sas ba loolu ndam la ci taalibe bi la si sëriñ ba nee na yàlla suñu borom jàppandal mbir yi nag nee na jaam bi lu mu jéem rek mu jëm ci lu baax yàlla war na ko ci defal tracé ak jàppandal yàlla mbir yëpp jàppal na te ànd ak gërëmal yàlla ànd ak sa bopp ànd ak dal ànd ak gërëmal yàlla nee na forcé wu ci kenn nag waaye lépp loo xam ne waaye def na ko ci dañ ko gis rek te sa bopp nga defal nee na loolu la ko ñëpp xam képp koo xam ne def ko si defaloo kenn sa bopp nga defal ndax loo def ci yóbbu ni sa laaj sa bopp nga ko defal nee na ngeen fas yéene teewal aaj yi ñu ñaanal leen yàlla ñëpp mën a dellu si jàmm nee na kuy dem nag na nga yóbbaale parce que boobu ne tànk bii fas naa yéene dépassé ci loo xam ne nii ñi koy kaw fas naa yéene ci te danaa te danaa ci defee doole loolu kuy def da nga yóbbaale na ndax ñi amoon doole daana leen ko nee na yii jéem leen muy jéeg nii nee na bu kii jóg yoonu kenn du ci rek nee na loolu ndimbalu yàlla bu ñu wax Moustapha Mbaye di taal sëriñ bi nee na dana sëñ Talla sax Moustapha Mbaye mi ngi nii toog moo soog kooku dem mu yóbbi mu nga nekk mbokk nekk mu ngeen nee na dina joxe fii ci Talla ci ay kàmb nee na yàlla ko yàlla gërëm nee na yàlla yàlla jàppandal ko ala itam ñoom bi sënu sëriñ bi mooy joxe xaalis bii ñàkk kon nee na bu ma diggante nee na xale na waaye xaalis bëri na de alaaji tam Diop sëriñ bi doon jàngee fii ci kër bi moo joxe quarante mille yi juróom-ñetti ñu desee baax nee na loolu la ci mbooloo yëgle ci mbooloo mënta ñàkk rek nee ay mbooloo mbooloo luñ bokk foog ñëpp dañ ko war a yëg loolu moo war a nii nee na waaye taal bi luñ doon doon doo wóor sëriñ tam bàyyi da koo teg nee na sëriñ alaaji yi nee na boo ci liggéey yi de. ñi dégg ko nag nee na mu ne leen lii nee na doom bi ci dara bàyyi alaaji sax ci jaar nga xam ne moo ji yoroon liggéey tànn bi ba doolu fii nee na joxe na deux cent cinquante mille juróom fukki bi nee na mu ne moom nee na bañ taxawalee lii dafa woo sëriñ bi ñoom mu ne leen lii yéen moom mu ne bu taxawee ne sama maam laay defal nee na song rek loolu danañ ko daal nee na doom yaa ngi te bëriwul nee na doom yaa ngi nee na bëri na pays yoo xam ne ci kër yi nii tey tey la gën a am doole te doom jeex na ba daanaka rek sëb rek a fa des nee waaw waaw day baax waaw waaw ba jàng joxe na mu waaw mu commencé bu yàlla bis nee na na ñëpp bokk góorgóorlu Ibrahima Cissé nga xam ne ci daayira bu Saakiriin la bokk joxe na tax na si moom moom it waaw képp ku mën a joxe tey tey joxe tey tey ku mënul boo demee si kër waajal bi joxe bàyyi seen tijaan joxe na eh, Abdou Salam bi muy sept sept eight six nine nine two ah wéefu Gambie bi la wéefu Sénégal bi 77 703 19 07 27 07 loolu laa wax 77 703 19 05 boobu mooy wébu Sénégal bi lépp loo xam ne jaar na ci loxo Baye Cheikh Tidiane bu dee benn dërëm bu dee junne bu dara ak si fii Baye Laaj Ousmane si nu rey nii borom xol bu sell bu laaj bi ni ko Serigne Tata wax na léegi nee na jox na fanweeri bi naa mel tax ci taw sax yàlla ko yàlla gërëm yàlla ko ci ci njëriñ yàlla mooy tax a gëm yàgg man damaa la jox ten daa sax incha allah man seen tijaan naa la jox ten daa la ne soo di turandoo góor ñi di taalabeem joxe na fukki ñu ne seeba joxe na fukki ñu ne seeba Modou ah taalibe nee na moo di taalibe Baay Seex joxe na fukk ñaar dawal Jibril Jibril ñaar jabar fay ñaar la joxe cinquante mille jërëjëf Jibril yàlla ko yàlla gërëm nee na bas bas bi yàlla ko yàlla loo feeñ feeñal yéen a ngay ji nag sëriñ nee na yéen a ngay ji yàlla ko yàlla nee na yàlla yàlla gërëm lépp na ñëpp ñëw na ñëpp ñëw nay yëngu nay yëngu waaw nay yëngu nee na lépp lu ci waaye dogu bëgg moo def dana jàpp incha allah Mansour Ba di doomu Baye Serigne Ba nee na dana joxe trois cent ans incha allah doole moom di ko xeeb lool jigal la alaaji Gare Ndour man mbir na gare mu ne la si zone de Ndar waaw su ma góor a